Hi everyone, ladies and gentlemen. Uh, we are very happy to come back here with you on your favorite YouTube channel, First English in Wolof. My name is Harim Doud from Field Team, and today we have a dialogue between a buyer and a seller. They were talking about buying a shirt. Salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax. di rafetlu seen ànd bi ngeen ànd ak ñun ñun waa Fiiw Team ki wax ak yéen mu ngi tuddoo Xaadim Mbacke jóge ci Fiiw Team te nag dañ leen indil benn waxtaan boo xam ne dafa dox ci benn jaaykat ak jëndkat ñuy wax ci buying a shirt maanaam ci njëndub t-shirt ñu déglu leen. Excuse me. Hello, sir. May I help you? Yes. Can I see that shirt on the top shelf, please? Sir, here it is. How much does it cost? 3,000 francs. 3,000 francs. That's two much. How about this one? It's on sale for only 1,000 francs. I don't like that one. How about the one next to the black gloves? It's very similar to the one you like. Oh, that's nice. How much is it? 400 francs. That will be fine. Is this color okay? Or would you like a different color? That blue is fine. Do you need any more of these shirts? Yes. How many do you want? I will take two more a red one and a white one. Thank you. Thank you, mister. Excuse me. jëndkat bi ma ko wax. Excuse me. nga baal ma. jaaykat bi ne ko. hello sir. sëñ bi na def. may I help you ndax mën naa laa dimbali jëndkat bi ne yes waaw waaw can I see that shirt ndax mën naa gis t-shirt bee on the shelf please bi nga xam ne moo nekk ci kaw étagère bi nga baal ma jaaykat bi ne ko sure aha kay here it is mu ngi nii jëndkat bi ne ko how much jëndkat bi ne ko how much does it cost lu muy jar jaaykat bi ne ko three thousand francs bii de trois mille francs lay jar mu ne ko 3000 that's too much 3000 francs loolu bari na de jaaykat bi ne ko how about this one waaw loo wax ci bii it's on sale for only 1000 francs bii de 1000 francs kese lañu koy jaaye jëndkat bi ne I don't like that one ah bii de bëgguma ko walla bii de neexuma jaaykat bi ne ko how about the one next to the black gloves waa loo wax ci bii nii nga xam ne moo nekk ci wetu gants yu ñuul yi loo wax ci t-shirt bii nga xam ne moo nekk ci wetu gants yu ñuul yi it's very similar to the one you like moom de dafa niroo lool ak bi nga bëgg jëndkat bi ne ko that's nice how much it is bii de rafet na lool ñaata lay jar jaaykat bi ne ko five hundred francs bii de cinq cent francs rekk lay jar jëndkat bi ne ko that will be fine walla lool de dina baax jaaykat bi ba tey ne ko is this color okay ndax couleur bi baax na or oh, would you like a different color wala boog danga bëgg beneen couleur jëndkat bi ne ko that blue one is fine bu bëla bee de baax na lool jaaykat bi ba tey do you need any more of these shirts ndax bëgg nga yeneen ci t-shirt yi maanaam ndax bëgg nga yeneen t-shirt jëndkat bi ne ko yes waaw waaw bëgg naa yeneen jaaykat bi ne ko how many do you want waaw ñaata nga bëggaat jëndkat bi ne I will take two more naa jël yeneen ñaar a red one and a white one bu xonq ak bu weex jaaykat bi ne ko thank you jërëjëf jëndkat bi ba tey thank you mister sang bi jërëjëf waa mbokk yi loolu moo nekkoon suñu leçon bés bi mu nekkoon dialogue bu am solo maanaam aw ab waxtaan ci diggante ab jaaykat ak kuy jënd ñu leen di ñaan rek ngeen gën ñoo topp ndax am nañ fi yeneen waxtaan yu bëri yeneen dialogue yu bëri ngeen gën ñoo topp rek bu leen fàttee abone bës cloche bi su ko defee bépp vidéo buñ dugal rek di ngeen si mën a jot wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen waa Sénégal dem leen YouTube ànd ak fas yéene yéen waa